ñaaw yal na ko yàlla nasaxal ba du sotti mm. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku mu dal yàlla na yàlla saafara ku mu dalul yàlla na ci dégg doy ku ci faatu yàlla na nga teere ji àjjana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla jubal suñuy njiit moo xam ñi jiite diine ji wala ñi jiite pénc bi yàlla def ñoom maanu jub ak ragal yàlla mm. yërmande ci askan wi ñoo ànd ngir jariñ askan wi bañ a kompaloo ngir di jariñoo askan wi yàlla yërëm suñuy néew suñu way juri jiitu suñu bokk yi jiitu suñu wëlër yi jiitu ak bokk jullit yépp yàlla yéega leen ca barzax sidna muhammad boole leen ma annabiyiina wa siddiqiina wa shuhada wa saalihiina wa xasuna ulaayka rafiqan allahuma la tahrimna ajrahum wala taftinna baadahum yàlla yàlla sama suñu diine sàmmañ suñu ngor sàmmañ suñu bokk yàlla bu mu xajam àdduna yàlla bu mu xajam alaxira yàlla na yàlla def jàmm ci sunu réew mi yàlla na li taxit jullit di am jàmm yàlla nañ ci yàlla xeer ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, ñu nekkoon ci ñu nekk ci weeru Chaabaan muy weer woo xam ni eh, Usa Usaamatu bnu Zayd dafa laaj yonente bi ni ko lam min ashuhur min ma tasuumu min Chaabaan yow yi Muhammad dama seetlu ni. li ngay woor ci chaabaan ëpp li ngay woor ci weer yu dul chaabaan ndax waxoon naa leen démb ni sayyidatna Aïcha nee na yonent bi musul woor weer ba mu jeex lu dul weeru ni ko nag man dama gis ni li ngay woor ci weeru chaabaan moo ëpp li ngay woor ci yeneen yenn lu chaabaan mu ni ko dalika shahrun yaxfulu anhu nnaas ma bayna rajabin wa ramadan huwa shahrun turfau fihi al ila rabbi al alamin wa ana an yurfa amali wa ana saim yonent bi ni ko xam nga lu ko waral mooy day weer woo xam ni nee nit ñi dañ ciy faral di sàggan te càggante googu mën na leen a ci biir ramadan moo tax weeru ko weeru shaabaan ci ngay tàggate sa bopp pour bu weeru koor ñëwee nga xam ni léegi yow sa bakken dina pare waaj mi ngi mel ni ñi nga xam ne ñooy langage football yow boo dee jour bu la classé kon kon ci rajab lañ la classé chaban ci ngay dem regroupement weeru koor nga gañ a match bi waaw kon maanaam noonu nga koy dégg ndax Aboubacar noonu la wax Aboubacar nee na maanaam rajab shahru zar'i rajab mooy weer wi ñuy jiwe waaw moom bu ji tuyaaba ci la ñuy jee tuyaaba jëf ji ñuy soxlaa tuyaaba ci weer rajab lañ koy jëre nee na shaabaan ci lañ koy roose pour mu màgg nee na waaye ci ramadan ci lañ koy récolté jariñoo kon mu war la nit weer wu nekk weeru koor lañ koy waajal waaye ñu maanaam euh, pas ba nga xam ne bu ñëwee maanaam parce que koor li yonent bari na ku woor amul ca koor ba lu dul xiif ak mar loolu pour mu bañ la dal moo tax ngay def entraînement yi parce que damay wax ni eh, dafa am ñoo xam ne dañu ragal koor ba façon bi ñuy defee sax da lay wóor nit ñi xamuñu luy koor da gis koor bu koor gi ñëw suñu naan ah kii mooy añ bu mujj kii mooy ragal ragal xiif kii rek mais koor foog mu métti pour mu nekk woor waaw foog mu métti fu nekk woor te maanaam woor woor gi ngay woor muy métti it bu nit jàpp ni lekk bu bari fa inna taama yuqawwi shahwata nahi maanaam kii euh, bu sëy dafa ni nee na lekk lekk day yokk fu xole rek mais du ko wàññi moo tax koor bari nañu sol koor di solal mais nit ñi woore boo leen sonal benn koor gi ndax am na noo xam ne soo ko lekkee rek bëccëg bi daf lay sonal donc bari na ñoo xam ne façon woorin bi moo leen di sonal mais koor gi waaw kon koor yorent bi nee na euh, Shaaban ci ngay waajale sa bopp ba nga xam ne bu koor gi ñuy psychologiquement da ngay pare pour woor woor ku sell ku yiw waaw ndax woor da nga war a fexe ba li ngay woor nga yëg ni jaamu yàlla la xiif li ngay xiif da koy def ngir jaamu yàlla not sa bakkan ci bu nangoo déggal borom bi loolu mooy sa objectif ci biir koor yi yonent bi ni ko it euh, Shaabaan day weer woo xamante ci la yàlla yëkkati jëf yi yóbbu asamaan maanaam koor ci lañu yóbbu dossier yi dossier asamaan mu ne nag man nag damaa bëgg sama dossier fu ñu ko yëkkatee rek su ko yàlla lañ ba tee fekk ci koom kon ñu xam ni kon weer weer wi sàggan ci ba wóoroo ci kooku erreur bu ngand la ci ab jullit fii yaa koy man nag waaw c'est que mu yaru koor sax boo ko mënul teguñu la ko ko waxuma la nag wooru gàtt nga boo xamante ni wooru sunna la moom soo ko mënul kenn tegu parce que charia moom loo mënul loo mënul waru la soo ko defee xëy na bàkkaar sax nga cee gën a am tuyaaba mais li ñi gis kay mooy loo man ba pare bàyyi ko fa waaw bu dee farata di nga am bàkkaar bu dul farata di nga ko réccu la moo tax képp koo xam ne yàlla may na la kàttanu mën a koor lu mu gàtt-gàtt euh, yonent bi dana def boo mën parce que am na ñoo xam ni noot nañ seen bakkan ba quinze jours yëpp la ñu woon parce que wax naa leen nisfu chaabaan la ñu wax kenn waxul wasatu chaabaan wasatu chaabaan wasat mooy digg arab digg wasat lay wax mais nisf genn wàll la moo tax am na ñoo xam ne dañuy woor genn wàll gi yëpp waaw am na ñoo xam ni euh, maanaam léegi da ngay tànn sunna yonente bi ni mu daan def altine yi alxames yi woor ko ndax yonente loolu sunna la woon weer yëpp altine bu jëkk ci weer da koy woor altine bu mujj ci weer daf koy woor waaw woor treize woor quatorze woor quinze donc ku a tànn yooyu woor leen waaw ku ci mënta loolu yëpp nag ak ah, nga jëm ci am sax benn fan waaye toog quinze yëpp amoo ci benn fan loolu wóorul waaw loolu wóorul ci jullit jullit dafay xër ci yàpp moo tax na ci ñëpp góorgóorlu ah eh, am na ñoo xam ne nag moom dañ koy dàkk rek ci ci wasat ba waaw du ma wax sax nisfu parce que nisfu nee naa leen mooy genn wan waaw ñi maanaam dañuy wax ni man damay xaar wasatu saabaan man dëkk ba laay xaar mais nisfu saabaan moom mooy li ko dalee le premier ba le quinze te tey la sept kon ñu jàpp ni tey la juróom-ñaari fan ci weeru saabaan bu ko defee ñu bañ a sàggan bay fukki fan yi juróom di wees te amoo ci benn fan fukki fan juróom yi mujj na Aysa nee na yonente bu daan jot day téye koor gi dem bi defee kon lii koor gi daal fi mu gën a dudul nag ki nga xam ne dafa am boru koor ki nga xam ne boru koor moom moom moom mën naa continuer di woor di fayee borom te ki nga xam ne day woor ci naafila moom bu ñu demee ba yegg ci 15 mën naa arrêté nag di xaar weer koor gi yàlla ñu yàlla may yegg ci koor gi gam te yàlla ñu yàlla may wér bu ñu ko wooree te yàlla ñu yàlla may tawfiq bu ñu nangulee suñu koor te ñu fekk ko ci at yu bari asalaamaaleykum wa rahmatullah